kàddu gi nga xam ni moo jóge ci Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké lu koy ñaanal Mbacké yàlla na fi yàgg jëlee sëriñ na asalaamaaleykum wa rahmatullahi mu ne ñoo ngi nuyoo bu baax waaye ñoo ngi delloo nuyoo bu baax delloo siyaar bi di lool ci président Ousmane Sonko Seydina Ousmane Sonko mu ne ñoo ngi am mbégte bu baax a baax ci teewaay ak kàddu yi ak kàddu yi jot yi kàddu yi rafet yi kàddu yi matale yi mooy dégg nañ lépp mu ne suñu xol sedd na ci suñu xel gën naa dal ñu yaakaar it gën naa dolli ko ne kàddu yi nga xam ne moom la Seydina Ousmane wax mu ne gëm nañ ko bu baax a baax mu ne loolu rekk mooy li ci am solo ji ak yéene ji ak passeer gi mu ne loolu rek mooy di ci am solo te xam nañ ne lii ci moom kon loolu rek mooy di ci am solo mu ne ñoo ngi am mbégte bu baax di am yaakaar bu baax di sant di gërëm di ñaan bu baax itam suñu borom mi def ak a dindi mu gàttandu leen ak tawfiix ba lépp li seen yéene ji rafet ji li seen yitte lépp suñu borom gàttanu la leen ak tawféex yombal na leen lépp ba seen yéene ji àgg nu gën a rafete nu mu gën a mate mu ne loolu mooy li ci am solo mu ne gannaaw yéene ji lépp lu baax la yëngatu bi lépp lu baax la kon loolu rek mooy li ci am solo kon am nañu am xel mu dal bu baax ñu ngi sant ak gërëm mu ne ñoo ngi fu ñu nekkoon naka jekk rek fas yéene nekkal sëriñ bi mu ne sëriñ bi boolewuloon dara boromam ak yonent bi mu ne loolee nag lu ñu ñàkk solo lu ñu doy di doy di foofee rek la ñu fas yéene teg suñu tànk suñ kéem kàttan nekkal sëriñ bi sëriñ bi nag ñëpp ko bokk kon lañ fi nekk rek kuy ñëw fekk ñu fi kuy dem it bàyyi ñu fi loolu rek lañ fas yéene sax mu ne am waxul ma sax seen yéen ak seen taxawaay ak seen taxawaay bi ñu am mu ne jëlale na loolu mu ne waaye suñu te yëpp mooy taxaw nekk fi sëriñ bi rek te sëriñ bi ñëpp a ko bokk incha allahu mu ne taxawaay bi yëg nañ ko te xam nañ ko bu baax ñu ne ñoom yi gën a fas yéene feddali suñu laxasaay ànd koog yéen ci zaahir ak baatin mu ne loolu mooy li fi nekk ko ànd ak yéen bu baax a baax mu ne xam nañ seen taxawaay li ci kanam lépp mu ne lépp loolu baax lu bëgg luñ bëgg réew mi luy defar réew mi mu ne loolu danañ ci ànd ak yéen ci biir activité incha allah mu ne kon bayoboo na seen xel daal bu baax mu ne ni suñu xel dalee suñu xel daal na bu baax mu ne gannaaw yéene ji yéene ji rafet la yitte ji mat na taxawaay bi dëgër na mu ne ko loolu ku boo rafet jot kuye boo na sa xel daal bu baax jërë ngeen jëf jërë xam nga bu noppee ñu may ko

Gani, Gani, Gani. Da. Thank you. Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ak muy la nga waxoon def nga ko ne Balaye si. ba réew mi yëngoo da nga ne leen li ngeen jàpp te ñëw ci man ma digal leen te tere leen ñu nangul la ko. nga yàlla ma yàlla may ma am jommi fay bor bi fay ma bor bi waaye Ousmane ndox ba ngeen xamee li leen Serigne Touba defal. Thank you.